Baol Production 20 ans d'existence 20 ans de carrière 20 ans de succès waaye nag mbokk yi ci biir 20 ans yooyu Assane Ndiaye daf ci ànd ak xarita doomu ndeyam Abdou Aziz Ale Ndiaye bii nag moo war a nekk troisième édition sargal Aziz Ndiaye l'homme d'affaires borom jado Assane Ndiaye ni damay indi la crème de la lutte sénégalaise xale yi nga xam ne ñoo dàkk bëre dàkk mobiliser dàkk ambiance ci lamb ji déglul ma grand combat bi mbay guy gi doomi Baol la jël daal du koy boole ak xale bi nga xamante ne nii mooy ngémboo yaraax di Moussa Ndoye dafa jàkkaarloo ak caatu Bambilor drapeau Ngagne Diouf maire de Bambilor dafa leer numéro 2 daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak doomu Jolof xale bi mën a bëre lool du Anta numéro 2 doomu Thiès war a jàkkaarloo ak Sayara Kewel numéro 2 dina fa jàkkarloo ak Boy Niang numéro 2 drapeau Naar Ñaan borom Sandaga yeneen combat yi ca gannaaw nag moo gën a neex moo gën a doy waar ndax Assane ay ndaanaan rek la boole Assane Ndiaye ak waa Bawol production nag dese lu ñu dara amateur Assane ni sponsor yi may àndal ci bés bi bokk na ci boisson original boisson Cobra ETDR établissement Touba Darou Rahman huile Jador distingo Tibet mbokk yi rendez-vous baa ngi noonu le 10 novembre ci arène nationale ñu ak Bawol production nest pas du min ngeen Assane kenn du leen wax ndaanaan fi ak ki nga xamante ne mooy waa Malika ah Aliou naa Ousseyn fay naa la ci loone waajal am nam rek mais tey Seye ni mu defee stade bi na waa waaw mais champion d'Afrique la te am ci moom yaakaar dafa war a nekk roi des arènes euh, suba. ñëpp dañ ne général Malika li nekk si kaw fu mu koy jëlee loolu loolu ñëpp di laaj. am na sax ñu duggul amuñu ay bee am na ñu duggul ndax amuñu ay bee. da ngeen manqué mooy. barke alxuraanu karim c'est que yëmbal yëmbal buum benn baraak Malika gars yi amuñu jàppale quoi. général Malika ay moyens la jël jël ñu ngi jaay ticket te booy ba tey ñu ji ñu ngi ci biti des na barke alxuraanu karim gars yi dañu ko jàppale. tey lan nga yëg ci moom. ndam rek incha allahu rabi yàlla wax yàlla defal ndam boo ah boo ko doon entraîné préparé na ko préparé na ko daal ci tous les plans de préparation bi yàggoon na trop tey moo ci des yàlla wax yàlla suuf daal defal ko ndam bu sedd bu ci barke yonent bi te rafet na suñu jot nit ñi. ngay waaj bés bu am solo parce que nag ah, da nga dugg da nga dugg da nga duggoon ci fee bay booy sens am ndam xam nga nag foo waxu mu neex da nga fay bëgg a delloo sa loxo nga delloo sa loxo mais fëgg la bu ngor loo duggoon fëgg la. dama am seen sarax foofu dama am seen sarax dama xam seen sarax. waaw da ngaa daan rek am de. ki ma daan mooy mbër mi. kon kan ngay bëreel. si bu ngor mooy mbër mi. kan ngay bëreel. simukat bi. déedéet waay. simukat bi laay. déedéet ñaar mbër waa ci ginte. moom laay bëreel. simu yaa ngi bëreel nag ku xajam. amul benn problème yàgg naa bële ku xajam. yàgg naa bële ku xajam foofu dama am seen sarax. te le vingt neuf xam ne dafa am seen sarax. mais est-ce que xam ne gaynde mer la fanaan parce que boo ko duggee jàpp mbéy daan ko ñu amoon moom yaakaar ñu ñëw nga nangu leen mayaat revanche lan nga bëgg a wane ba tax nga nangu leen mayaat revanche. am seen sarax rek am seen sarax rek daan naa mbër bi simukat bi moo des dama dama ko daan incha allah te mooy gën a métti le. lan lay gën a métti. dama ko ci boole ay tubo. mën ngaa duma fëggal. yàgg ngaa jëflante ak booy sa diggante ak dafa mbër sa diggante ak yeneen xale. dama ko ci boole ay duma ndax daa bëri wax daa bëri wax dama ko ci boole ay duma Ouzin le 29. yàgg la lan la waxal waxal yàggatul yàggatul daaw li mu si jógee damaa juum am ci lu ma jógee mbaak euh, du ma tudd sax turam mbaak booy boobu. waaw. waaw lu ma war a wan ci fëgal ngor. te nekkul moom moo mooy moom moo mooy téye. mais la moo tax Alioune Seye chaque fois bëgg di bëgg xale yi Alioune Seye chaque fois mu bëgg di may booy. samay morom ñoomul nangu doo jël te du ma fi toog di xaar naan kii laa xaar wala kii léegi làmb tooladul foofu làmb tooladul foofu Ousseyn léegi làmb xamal la la dañuy dañuy bëgg sa combat yow ak diw ñu waxoon seen sa wax ak sa waxoon seen mbokk ñu pare pour bëre ñu waxal combat bi ñu fay lu la jaral nga bëre 14 victoire la am 14 victoire. samay morom nangu ñu ma jël booy ñoo nangu di bëre ak man ma bëre ak ñoom. lan ngaa fëgg la. le vélo dinaa ko duma taal ko incha allah rabbi. lan ngay ñu xaar ma bii bii duñ ko baal tout sauf sa tout sauf sa fëgal bu ngor. loolu nga déclaré. tout sauf fëgal bu ngor. Euh, euh, Ousseyn. waaw le vélo su ma ñëwee fii nga xam ne mbër mi ñëw na barke alxuraanu karim. mais la la jëy ba Alioune fëgg la mu ko jàpp daal la. dama koy duma. dama ko dàq bële bu ko doole. mais xale yi màgg nañ de. ba le 29 ci kàttan yàlla. Ousseyn dana ngay xam. mbër mi daan naa ko suñu kër bi laay bëreel. damay gën a métti laay duma laa ko boo xam te ne na waa Guédiawaye ñu bëri te waa Guédiawaye yàggam yàggam nañoo bëgg loolu muy ànd Lac de ak ki nga xamante ni mooy mooy mooy Balla naka nga gisee ànd en tant que mbër bu nekk école de lutte waaw. mais loolu yooyu yéen la frappé man frappé ma man mi nekk seen biir man loolu ba Lac de Balla Gaye rek la bëgg. Balla Gaye Lac de Guiers rek la bëgg xam nga am na ñu ci nekkoon di wax di nangam nangam mais ñoom ñaar xamante nañu bu baax a baax. ndax Double Less papay Balla Gaye moo waxoon Balla Gaye Lac de Guiers 2 sa mbokk la Lac de Guiers Balla Gaye 2 sa mbokk la. Lac de Guiers ba muy bëre baare combat moom ak Modou Lo Balla Gaye moo ko jàppale woon ci combat ba muy bëre baare combat moo ko Eumeu Sène ma yii de yu njëkk ya Balla moo ko doon jàppale ah, ah, moo ko doon jàppale contact ci ci lépp xëy na nag am na lu ndaw la amoon coow problème amu woon de dafa amoon ay détails am rek mel na Lac de Guiers Balla Gaye doo ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk ndey ñoo bokk baay na na na leen gars yi bàyyi ñu ànd ñu bokk ndey bokk baay ndax Balla Gaye 2 li mu mënoon Lac de Guiers Lac de Guiers kenn mënul ko Lac de Guiers 2 li mu mënoon Balla Gaye kenn mënul ko xam nga ñu bokk ndey bokk baay te Lac de Guiers 2 boo boole xolam tey Balla Gaye 2 nga siy fekk ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ay ay doomu ndey lan ne leen gars yi bàyyi ñu ànd ñu préparé seen combat yi yàlla defal leen ci ndam waaw mais nag li ñu gërëm na Pape Mama Pape Mama ak sunu président président Pape lépp ñoom la ay ay grand Moussa Fall xam nga ay grand ay ay grand Lirou Diane xam nga ñooñu ñoo ci dox jàmm géejawaay bu ñu bu ñu àndee bu ñu àndee laa kenn mënu leen barke alxuraanu karim su ñu àndee kenn mënu leen nan bokk ndey bokk baay xàccandoo dóorandoo guy gi Lac de Guiers 2 Sa Thiès Balla Gaye Alioune Seye 2 ñooñu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay après seen rakk yi doog a ñëw xam nga bu ñu àndee bokk ndey ñëpp duñ mën a ne Alioune rek ku see neex ndax Alioune Seye chaque jour day fédéré na ko ba dana ma ab ay pick-up ay oto yu ndaw dana ma dana ma ay oto yu ndaw ndax mbaru géejawaay yi jamono jooju géejawaay boo jëloon pee ñëpp a daan Alioune Seye moo jëm te bu mat ay 40 boy xam nga neen gars yi baax ñu ànd ñu bokk ndey bokk baay di ñaan la dégg nga combat bi mu jëm yàlla ko ci ndam di ñaan Alioune Seye yàlla ko yàlla may combat moom ci ndam. ñaanal Balla Gaye ak Sa Thiès di ñaanal Mathia Birara tamit yàlla na yàlla may ndam ci combat bi jëm Thiatou Walo xam nga Visa euh, Balla Youssou Ndour xam nga ñu ngi ñaanal gars yooyu am combat yëpp yàlla na yàlla defal ndam bu baax a baax. kontaan naa ci. ok maa ngi dolli péré bu baax a baax